lu jiitu ci samay kàddu mooy jamay jaajëfe félicité Fama Diagne mi nga xamante ni tey euh, moom moo gagné ci mise bi nga xamante ni 300 francs la tegoon yàlla dimbali ko suturaal ko ba mu gagné lu toll ni cent millions 60 mille francs CFA euh, famille Lonase yëpp di ko ci félicité di ko jaajëfee di ko encouragé di remercier également euh, confiance bi ñu am ci ñun ñuy remercier également produit bi ñuy naan le quatre cinquante six ou bien euh, seen loto jackpot bi nga xamante ne ci foofu la Fama Diagne joué gagné di ci jaar aussi di ko souhaiter bonne et heureuse année di souhaiter l'ensemble des parieurs ñëpp ñuy liggéey ak wala jëflante ak ñu ngi leen di ñaanal atum jàmm atum péex atum en tout cas jàmm di ñaanal également famille Lonase bi yëpp une bonne et année. fan yi ñu euh, romb rek ci foir bi ñu ngi doon lancé ak Lonase Bet jeu concours CAN bi pour laata CAN bi di démarrer ay ndaw wala ay parieurs ñi nga xamante ni joué nañu bu ñu gañee ñu dimbali leen ñu ñoom fekk ci équipe nationale bi ci Côte d'Ivoire jàppale leen gunge leen waaye. boo leen seetloo tamit loolu commencé nañ ko ba am na ay nit yiñ ci tàbb te li na a continuer la ba el eh, ba kaan bi jeex donc euh, dañ leen di encourager di tat di di di xool tamit nan la ñu mën a organiser toujours pour que l'ONAS nekk euh, di accompagner parieurs yi ci bépp gain bi ñu mën a am ci produit yi ñu yor yëpp année eh, fan yi ñu romb tamit amoon nañu beneen produit bu ñu lancé bu ñuy naan Quinté Plus ak euh, yeneen produit yi nekk biir l'ONAS Euh, di encourager parieurs yi waaye it di toujours naan na nit ñi continuer di fagaru di mën a euh, du ma naan xeex euh, jeu yi waaye di def lu ñuy naan jeu responsable parce que LONASE loolu la woote aussi bañ a indi addiction bu bëri ci suñuy ndaw waaye naan leen tamit réalité la nit ñi di jouer di gagner loolu ci biir kër gi presque chaque semaine wala chaque jour laay wax li may signé ci ay gain parfois dinaa leen laaj ndax ma it du ma dem taxawee beneen boor bi commencé jouer. Eh? Euh, man maa gagné chèque 100 millions 68 mille yi voilà tout d'abord je remercie la LONASE de m'avoir permis la chance de gagner ça waaw donc aussi di ñaax yeneen tamit pour ñu jouer ñu tenter seen chance pour gagner voilà parce que man de temps en temps damay gagner parfois une fois par semaine benn ticket laay gagner laay jouer ticket 300. 300 la fois passée dama demoon Tëngéej Rufisque ma seet sama tonton après ma romb benn kiosque ma ne pourquoi pas xaaral rek maa ngi woon 1000 francs ma ne xaaral ma dugg ma joué bi ma joué après si la gagné. voilà 100 millions 100 millions. ticket 1000 francs chance la rek ah comme ñëpp mun nañ ko gagné aussi. lan nga yëg yow ba nga gagné bu ma gagné man maa naa lii moom est-ce que dëgg la wala du dëgg. <laughs> vraiment donc chance bi ñëwoon na si man. dëgg yàlla maa ngi siy sant yàlla bu baax aussi. Mhm. di ñaax aussi ñeneen ñi ñuy joue voilà. 100 millions bon yi nag. bugg naa def ay projet macha allah. bëgg naa def ay projet d'autant plus que petit commerçante la donc dinaa gën a mën a yokk sama liggéey ñeneen ñi aussi mën see gis seen bopp investir si incha allah.